leer lu leer lu leer lu leer kay lu leer lu leer lu leer waaw yow nekk suñu liggéey laam la ñu am te laam kon boog doomu aadama boo boo fekk boo ko fekkee si liggéeyam waaw waroo ko gën a bëgg ñun kenn bëggoon ñu bëgg suñu liggéey laam la ñu am waaw laam moo tax gars yi ñu topp te ñun laam la ñuy topp waaw. li ma jaaxal saa boo tabbee fas dégg benn bande dégg aad rek la ñuy topp. ah la ñun laam rek la ñuy topp ñoom rek la ñuy topp man man laam rek laay topp waaw laam ñoo tax moo tax ñu may topp waaw man laam rek laay topp. aada dafa tey dal gi lay dal dal jàmm lay dal gi lay ñu tëdd dal gi lay ñu ah. tëdd tey dina mel ne tey. Ah. non loolu sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla. waaw ah, hmm. lépp sant suñu borom waaw suñu sant yàlla rek waaw sant yàlla. Hmm, hmm. léegi nan nga waajal si béykat guy gi ndax mbër mu doy waar la bu naqari bëri ka foo ñu dugg ci <laughs> waaw amul problème dafa doy waar naqari bëri mais Ada Fass xale bu ndaw la waaw. te xale lu mu lu mu téye rek moo ko moom. ñu ngi day laa xale laa nekkut a dégg nekkut a dégg mag bu déggee xale ne ko xale laa rek day yëngu xam na ni waaw yëpp mag lay def waaw man yëpp xale laay def. dinañoo gis kuy la xale laa. waaye na rey boo xam lu ko neex xale laa daal. Ah? xale laa de. gi rek ci suba ko combat bi taxaw mu ne mu muy digg mu ne ci télé yi. combat bi lii it bu ñu ta woon a ñàkk dama ko bëgg. parce que bi il faut ma freiné ko. <laughs> yéen a freiné amee la. yaa ngi def yaa ngi def bëgg ah. daal moom mais boo ko téye boo ko ci daan ba maraay ah, day daanu de incha allah mm, mm, mm. daanu ah, ah. nekkul a dégg rek mais day daanu de. waaw. guy bi rabbi. di ko ñaanal jàmm. jàmm jàmm bu baax a baax. suñu ko xam naa amaana mun na teew si kanam. waaw ankay day ñëw. day ñëw moom suñu fans la. ah om lay topp. kese ma rek lay topp. mo loolu dafa leer. Ah. fans la de. fans la man mbëri yëpp samay fans lañ. mbëri yëpp samay fans lañ. loolu mooy mbëri yëpp kon boog man ñëpp laa am ak jàmm ak salaam. waaw ah. ma kenn xaar ma yàlla ma doon may samay fans lañ. waaw maanaam làmb ñu ñoo ko ah, suñu teraanga moo si nekk. waaw dañ koy mayante suñu biir. naa xam nga ne am nga combat am combat. mais bii xam am. mais ki ma daan man moo ko daan moom amul bii de damaa yàgg am làmb làmb yëpp làmb la. waaw làmb yëpp làmb la sport la rek sport la quoi mënul weesu leneen lu sport kese. mais bëgg nga tam mu teel gaaw ba am date parce que bëgg nga koy def xam waaw fin saison dama bëgg a fin saison demee bi am ba raw liñ teg si laamu ji indi ko Ndakaar indi ko Fass fii. waaw ah, mooy objectif bi. kon boog nit moom chaque jour da ngay jéem a éteindre loo xam ne tey jii au sommet la daal tey jii képp kuy takk ngeem bu nga doon roi des arènes. waaw ah, tey jii loolu noonu wax boobu noonu lu may wax rek chaque jour moom ak samay morom boog bu ñu teye si laamu ji man sama coppite dama koy teg sama bopp. ah daa jàpp ne yaa leen sama morom man ñëpp ah ñëpp laa bàyyi ca ginnaaw maa seen roi kat neexut a dégg de te incha allah rabbi dama koy mu koy téye. Ah. waaw waaw flambeau bi du wàcc mukk. incha allah <laughs> ah, wala <laughs> di leen bett de ñëpp di ngeen seen loxo si gémmiñ incha allah ah. waaw moom. di leen jëm jëm ci gémmiñ te du di yóbbu ci. wallaahi du du question de naaw du question de dara. mel nekk ñun la waaw du moom quoi lu may wax chaque jour rek. samay làmb leen mu ko mën a déstabiliser mooy ma yàqam di sama làmb sama làmb ma taxaw bëre amul mbër bu mën a daan déedéet. Mhm. mais sañ-sañ bi aada di dégager moo jaaxal ñëpp sañ-sañ bi. bii di ñëw may raw. bii di ñëw may raw damay si garab dootu ko gauche droite nga ne ma lan gauche droite. doog moom. ah a denc ay wax te leen dugg ci gàddu gi dóor ko gauche droite. waaw boo bis ba adduna prép nga xool. man Fadel lay garam laay dugg. dóor ko ñaar waaw. Ah. waaw. yow nga war ko rek Adama ah booy yow jarul ma génn fii mu jël ko légèrement. waaw góor gi boo xeloo la kër gi. waaw moom da war a dafa fàtte kii njaru soow bi mu gën a neex. dana xam ne bis ba affaire laamu yi noo lay demee rek. ne ah laamu ji ni la war a demee ne la lay wax gars yi góor gi day daanu. te def ni ma coow ni ma coow moo du boole rek waaye sax maa ngi moom du combat ah. coow du boole nee na coow boobi coow la am. Ah, waaw amaana aada aada ji rek waaye maa ngi moom sax daanaka waruñoo bëri. waaw ah. loolu laay wax chaque jour dina bettu ñu bëri. Fadel daa waaw dama gis keroog bi muy bëree ki nga xam ne moom moo di Lac de Guiers ma gis aada am ay kàddu yoo xam te ni dégagé na ko gars yi vidéo yaa ngi daw mu ne moom foofu la teg bëtam quoi yaakaar naa daa yàq bëgganteeg ba bëreeg si na li ma koy wax foofu de foofu ab denc la non dawal noonu sax la rek sport la quoi kon li ñuy wax di nga ko mboog maa ngi si làmb ji ah. keneen ak keneen moo ngi si làmb ji amaana ku gëm sa bopp di nga nekk au sommet te ñëpp bëgg nañ egg au amaana man teguma ko sama bët quoi man làmb laa fi nekkal mais dama teg sama bët ca kaw déedéet du moom magu bu nekkoon moom ma bàyyi amaana jàmbaar la mu ngi si yoonam waaw moom ma jir si làmb sama mag la mag ma fuuf jir ma si làmb mais làmb moo moo ay tànk ay jéego te ñun dañoo teg suñuy jéego waaw nekkoon teguñu ay jéego sax ñu mën a wax mais jéego làmb la rek <laughs> làmb làmb njar la rek waaw damaa gis bërë muy bërë mu neex ma moo xam ne bu ma nee cax tànk bi damay moom. mbër jëlagul tànkam daan ko. daa lay wax ni papa xam ne dafa jël tànk mu loolu laa bëgg dama ne cax tànkam mu bëri ak moom ñu bëre. laa bëgg bëri ak moom. waaw te duñ bëroon incha allah tànk bi laa ne cax. laa nga waxee cax laa def tànk bi. dama koy dëj. gaan man kenn du ma def loolu. boo sañee samay combat man mbër ma jàpp si tànk daan naa la. te mbër ma song ma daan la. déedéet bàyyi loolu bàyyi loolu bàyyi faal la suñu suñu grand la mais làmb bu ñu boolee dañuy bëri suñu grand la nag mais sport la waaw sport la quoi. lii borom jant bi maa ngi nii nga ne borom dëkk. jant bi mooy borom dëkk bi yaa jant bi. waaw. loolu du yomb mais mais mais tamit Fadel ma gisaat ñuy wax Siteu na ñu naan jaadu na. sport la rek. lamb ci guddi gu bët setagul. boo di buddi nit ñi di damay teg jarum sow dama koy dugg ci kàddam doo ko góor man ma commencé teg ngem ba léegi mbër mosuma sempi. Ah. déedéet man mosuma ak loolu tontoo ma simple. daa am daa am ndort bu bëri xaw ma ndort la nga bu nekk si bu nekk si ñun. Hmm. no mun di tool boo ñu jàppee ñu jaaxaloo ñu fii mooy bëre fii la waaw. Ah. mais mais waxaat naa la ko aada sanction bi ngay nekk sama ginnaaw ñoo xam ne ni tey jii euh, gañ rek la ñu xam gañaa rek. tey jii amaana ñooñu ñooñu boo ñoom sa day dal. loolu kese la nag daa am ñu nekk sama ginnaaw waaw ñoo xam ne wóolu naa leen man ma jarle lu nekk te ñu bàyyi seen dité yëpp di ma teewal man xale bu ndaw bi kon amaana la ñoom duñ ma gën a bëgg a ndam chaque jour si loolu laay di leneen nag moo tax may soulager di ree xam nga sa combat la mën a yóbbu waaye bu baax ba xam nga sa bët pour nga mën faa yëg faaw nga faaw nga fekk moo tax boobu ba léegi ñoo ngi si pongali di bëri ñoom xale bu ndaw laa li may wax gars 2017 laa dugg si làmb dama gëm damaa gëm comme ma gëm sama bopp damaa gëm sama gëm làmb bëgg ko waaw mais làmb bëgg ko ak gëm ko du ay wax wala dara ay nekk si yow nga téye ko te fi ñu dëkk dafa nekk goxu làmb suñ juddoo fii. li ah. <laughs> mais man man bëri naa ay ndam de ne kon damaa bari ay défaite wala ay kii sax mais bëri naa ay ndam macha allah làmb la rek làmb mooy. kooka la. lu leer lu leer <laughs> lu leer lu leer lu leer koy laaj ba xam fii lay préparé combat ma guy gi wala day dem entraîné ji. day dem day dem <laughs> ah? du ay. ñoo mm, xam léegi du mm, de. ah dugg ci combat bi de koo ñibee man loolu du lamb du lamb déedéet laa ne prip bëri jaaxarloo waaw foofu la waaw jërë tàkk. mais bii di ko may mu jag. jag waaw man jag ah? ba eh, daam ñu jat dañoo rax waalo doomu waalo waalo doomu doomu ñun dañoo lu ne. ñun kenn mënuñoo jat ba tënkuñu waaw laay wax ak yow kenn mënuñoo tënk mukk jinne mën dem waaw dañu baax ñun kenn dañuy tënk ñun ñu wàccee alquraan karim xam alquraan ñu jat ñu wàccee la taxaw waaw ñun dañoo wàccee alquraan de dañoo wàccee alquraan xam alquraan nga Modou lu muy def noonu waaw fii ay sant daf fi franco laay mais loolu problème alquraan ah yow ah, dañu neñ toog kurus yor ko di di wéer di dóor suñu baatu laa ilaaha illallah ragal ñu dara <laughs> loolu mooy suñu fit nag loolu mooy suñu fit quoi baatu laa ilaaha illallaah boobu noonu. amaana moo na. ni Adama ak eh, moom a yem. li li leen ma nekk Adama romb na li classe. wax ni ay yi muy wax man. man kon lamb sport rek day jeex. li ma wax nii tey mooy ma mujj quoi. amaana ñun ay julit lañ ay julit lañ te ay taalibe lañ ndongo daar lañ. amaana lamb mooy suñu liggéey moo tax. après ñu bëri sax dañuy xaw a réer bi tuuti mais ñun ay ndongo daar lañ dañoo wàcc alxuraan jàng alxuraan. waaw nekk si ñun waaw loolu moo tax ñun amaana dara jaaxal ñu wane ay bëree jot na jot amul problème. mais nag fexeel ba waaye na jot. waaye daanu. non jot yeggul woon. Ah, waaye bu jot gën a fa jotul. <laughs> ñu bàyyi la kon nga di ci tudd mi ba si kanam ñu songaat la. waaw kontaan yàlla yàlla defal la. maa ngi nii sëñ Mor sëñ Mor. sama kilifa gële sëñ Fallou. waaw di nuyu le